spécial jagleel ko ah, xew-xew bésu démb bi di at bi di doxoon diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ah, ñu gannaaw nag at bi ak lay yàgg dogal bi nga xam ne eh, chambre criminelle jël na ko ah, moo di ne ki nga xam le benn fan ci weeru juin kon ci le tribunal nag di joxe dogalam laata loolu nag procureur bi nag moom sàkku na kii di Ousmane Sonko ñu daan ko fukki atu ndax mbirum viol ngi ñu koy ak tamit juróomi at eh, yi ñu ndax mbirum corruption de la jeunesse kan ñi ñuy xaar benn fan ci weeru juin kon ah, ci la chambre criminelle joxe dogalam ci mbir moomu ah, tribunal sàkku tam kii di Ndeye Khady Ndiaye ñu daal di koy daan ah, juróomi atu kaso ndax complicité ci wàllum viol ak menace de mort kon xew-xew bi loolu la daañu ci ànd tey nit ñu joxe ci seen xalaat naka noonu tam askan wi joxe seen xalaat ci dogal boobu nga xamante ne moo tukkee démb ci layoo bi amoon diggante aji Sarr ak Ousmane Sonko laata kon dañuy tàmbali. Ly ànd ak maître Ciré Clédor Ly maître Ciré Clédor Ly di kenn ci Lamine Ba kon nañuy àndal kon euh, Lamine Ba. waaw El Hadj. Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Diop waaw démb dégg nañu réquisitoire bi nga xam te ne procureur def na ko gannaaw la bi léegi foofu ca Ziguinchor euh, nan la nit ñi jàngatee euh, loolu ne. Uh-huh. El loolu la effectivement noonu la demee démb li nga xam ne moo di. Euh, réquisitoire euh, procureur bi ñu bëri suivre nañ ko fii tey nag euh, waxtaan nañu ak ñu bari ñi ngay xam ne ñu ngay nekk biir Ziguinchor waaye nag boo seetloo lu ñuy wax daal mooy seen xel dalul ci li nga xam ne moo di procès bi ni mu demee ndax jàpp nañ ne amul li nga xam nag moo di version contradictoire ndax de hmm. benn pàcc bi rek jàpp nañ ne la dégg démb am na ñeneen ñi nga xam ne ñi waroon nañu mën a fexe ba juge bi dàq li nga xam ne moo di bi ba ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak i avocat am fekkee li nga xam ne moo di bi waaye jàpp nañ ne démb euh, am na li nga xam ne waroon naa gën a leer ci mbir mi mujjul euh, leer euh, ndaxte bu ñu amoon beneen pàcc bi moo doon gën li nga xam ne nag seetlu nañ ko loolu di xalaat bu bëri bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci li nga xam ne moo di waxtaan euh, bu ñu sekk ak euh, ñi nga xam ne euh, ñoo di waa Ziguinchor xam nga ni fii Ziguinchor démb njóogu amoon na ay jàppante diggante manifestant yi ak tekk der yi jàppante yu métti sax ci guddi gi ndaxte manifestant yi doon yaatal li nga xam ne moo di seen i barricades yi waaye policiers yi ànduñ ci ba tax na amoon na ay jàppante yu méttee métti ci guddi gi doon tax na tey bi ñu xëyee suba ba léegi daanaka li ñu seetlu mooy amul li nga xam ne moo di app ay affrontement tey policiers yaa ngi taxaw ci suuf garab ci kër gi ci hôpital de la Paix manifestant instant yi euh, nekk euh, wetu buur kën kër Ousmane euh, Sonko li ko weesu El Hadj donc loolu daal lañ mën a jàpp fii ci ci Ziguinchor waaye sànq Georges moom ma koy laaj ci nasaraan baax na ma ma yëggal ko mooy hôpital de la paix am na ñi nga xam ne jot nañu waxtaan ak ñoom boo seetloo jàppante bi dox diggante manifestant yi ak force de l'ordre ci kanam hôpital de la paix lay am waaye Eh, foofu am na malade yu bëri jamono ji ñu ngay commencé di loru ndaxte am na ñu am rendez-vous waroon fa dem ñu am ay jafe-jafe dem ngir mën faju am sax ñi nga xam dañoo defoon ay AVC war def li nga xam ne moo di kinésithérapie mënuñ jël ak ñu ne ñi nga xam ne eh, dañu def li nga jalis euh, mooy ñi nga xam dañuy amee problème feebaru roño ñoom it seen i rendez-vous yi dañuy faral di ko manqué ba tax na am na ay maladies yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi biir kër yi tàmbali nañ ay jafe-jafe am ay jafe-jafe mm. ci seen wàllu na bu ñu sañoon nee nañu euh, nga xam ne moo di jàppante yi mu dàq ñu mën a mm. wéyal li nga xam ne moo di seen i kon narange yu bëri jëral na ko foofu la ca diwaanu Ziguinchor euh, kenn ci avocat yi maître Ciré Clédor Ly moom mi nga xam ne sax jamono ji mi nga foofu la ca Ziguinchor et que jot na sax jadeek Ousmane Sonko waaw wax nañu ne euh, maître Ciré Clédor Ly mu ngi fi démb 18h ba léegi euh, bu mu yegsee yëgal nañ ñu ko euh, ñëw na nag jóge Dakar ñëw seet ci ki nga xam ne moo di client am di Ousmane Sonko la ñu sekk ci waxtaan àllar moo ko tax a jóg loolu jéegu amul li nga xam ne mën nañ ko jël ay firnde amuñ ci benn firnde. jërëjëf Lamine Ba en direct foofu lay kon ca Ziguinchor dal gu mag lañ fa nemmeeku tey jii gannaaw acte bi bi amoon démb diggante aji Sarr ak Ousmane Sonko ñu koy gërëm bu baax moom. Lamine Ba di ñu toppal mbir yi boobu ba léegi foofu la ca diwaanu Ziguinchor ah, fii ci Ndakaaru ñu bëri nag ci askan wi naqaru li nga xamante ne xew na démb ca tribunal atte bi waaye itam lañ fa jot a dégg di loo xamante ne ay kàddu yu jéggi dayoo la ci atte boobu doxoon diggante Adji Sarr Ousmane Sonko ñu bëri nag méttitu mbir yi na mu demee reportage ca Caaroy ah, ak Salamata Ousmane Diallo. Adama Diop eh, ay atam la toll ci juróom benn fukk daal sol costume gu weex daal di ci teg ak mbaxana ñu fekk ko ci arrêt mu daal di taxaw di nga xamal ni moom bileeg procès jotu ko sax seetaan ndax dafa jàpp ni lu sax waru woon am la. bon man en tant que sénégalais suivre sax def na sincèrement pas parce que lii man pour man yàq deru Sénégal affaire bi ñàkk fay bi vraiment Sénégal war naa dépassé fii quoi sincèrement pas ñu koy teg léegi à la rajo mais lañ ko commencé rek mu ko ko soxla mu ko sincèrement. ci wetam El Hadj Issa Ndiaye Diarra di wax ni moom dafa daal di am gàcc gàcce ci sénégalais rawatina sax nak daal di nekk ak julli bi li dégg de part euh, umma islamique bi et puis islamo chrétien bi fi nekk gis nga léegi maintenant ak ak de projet la adduna bi yëpp euh, ñu seetaan nañu Pape Oumar Diouf kàddu yi mu yëkkati moom moo di ne procès ak warma la ko ci askanuk Sénégal ci di nakarlu yenn kàddu yi nga xam ni moom moo di audience yab askan wi premier moom mooy ndax ñëpp da leen doon leen teewlu kàddu ñaawul ñaawul ko lot, lot talk, and thank you again. askan wi yëpp toog dellu say nawle jigéen di dafa yàq deru képp kuy jigéen buñ sukkandikoo ci Antoignon nekk jaaykatu ñu fekk ko ci place eh, ah, am maanaam bi askan bi ñu taseel daal leen di tàllal suñu micro ñoom la ñuy ñaan rek mooy jàmm dëkk gi ak dal waaye tamit di sàkku ci yoon mu daal di def liggéeyam ca na ma waree baña am ak paax paaxloo. que vraiment ñu def tout daal jàmmale nii ñaan. Ousmane Sonko ak Mbaye Sonko ñëpp a ci ku yoon jox dëgg ñu xam ne yoon jox na la dëgg ku yoon xañ ñu xam ne yoon jox na la dëgg askan wi dem liggéey ñu wut beneen ja wut leneen. Salamata Ousmane Diallo Pikine. ngir radio futur media salamata ousmane diallo ñu koy gërëm kon wéy ak yéen ci édition spéciale bi ak xalaat yi gannaaw de atte bi woon démb diggante ousmane sonko ak aji sar ousmane sonko ñu fàttali ne moom teewul woon ndey xali ndiaye ak ki di aji sar ñoo teewoon kon foofa ca kanamu tribunal procureur bi nag sàkku ñu daan kii di ousmane sonko fukki fukki atu kaso ci wàllum viol giñ koy toppee naka noonu tam Euh, Jérôme at corruption de la jeunesse ndey Khady Ndiaye moom euh, juróomi at ci la euh, ci loolu sax dañuy ak réaction yi ñi ngi ci en direct ak Alassane Seck Alassane Seck beaucoup ci société civile yi jiite Ligue sénégalaise des droits humains LSDH Alassane ñu ngi lay lay fay. gis nañ dem ba tribunal euh, li xew ak euh, ci àtte bi diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr naka nga jàngatee mbir mi euh, démb. waaw xanaa li ci jaaxle rek c'est vrai que njóobu li ma gis démb lu doy waar la parce que d'abord pour pour le premier point bi ma seetlu démb mooy ku mel ne Ndeye Khady Gueye Ndeye Khady Ndiaye pardon xam nga moom démb dafa ñëw amul avocat hmm. te dafa nekk ci ñox chambre criminelle mooy cour d'assises

ci chambre chambre criminelle euh, cour d'assises ñu ñu lay jugé en tant que prévenu te amuloo avocat loolu mooy li jiitu ñaareel bi ku mel ne procureur li mu def réquisitoire nee na nañ koy condamné ci viol mais loolu wóoru ko mu ne ou bien donc mu ngi wax ñaari wax donc mu ngi ñarale te loolu aussi nekkul lu jub parce que ku mel ne Ousmane Sonko kenn mos ko dégg ñu yi enquête ci base corruption des agents jeunesse. Hmm. te moom la juge moom la procureur bi wax démb donc loolu lépp pour ñun ay sooxe la ay manquement euh, ci juge bi la ci justice bi la Sénégal war dafa defar muy forte yu am doole donc foofu loon ñu toll daal ci constaté ni procès bi waroon a jaar yoon mais jaarul yoon ndax loolu ma la wax. li procureur di wax. kon yéen en tant que organisation droit de l'homme dañ gis ne euh, conditions yi réewlu woon et que procès démb bi jaarul yoon. non non jaarul yoon ci bu ñaari cas yi ma la wax rek. Mhm. doo déglu réquisitoire procureur bi moom sax waru ko ne am na viol daf ne ne ou bien. Mhm. dafa wax ne ko nag ko naan à dix ans su fekkee viol la su fekkul du viol mu nekk faudra juste de la jeunesse. Mhm. mu bët ko toog na ne ko cinq ans. donc mooy dafa pour man waxu ngaro la da waxu waxu wax bu leerul la ou la wax. Mhm. ou donc amul il n'est pas péremptoire amul ci euh, amul ci firnde li muy wax moom procureur bi loolu oh, moom lañ ko remarqué ñun te ñun nekk nañ foo xam ne dañuy seetlu sur les principes que démb daal li gën a seetlu moom la neex a di ngaay non seulement ëmb na ba am juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer mënul taxaw mënul toog plutôt ñun ko da nga ko koy tere ba mu gis ci boppam. ba pare mu amul avocat mu dem moom rek kanamu juge bi pour ñun loolu jaaduwul nekkul ci yoon ci principe bu justice euh, dans dans le monde et en général. Mhm. loolu daal la ñuy seetlu malheureusement di ko di ko di ko méttitlu. Mhm. di daal gis na loo xam ni ay manquement la ci justice. gis nañ tamit euh, atte bi ci boppam euh, kàddu yi fa jub démb ci kanamu tribunal ñu bëri nag naqarlu ko ndaxte kàddu yi doy waar diggante góor ak jigéen dégg nañ ko foofule ca tribunal ñu bëri gis ne sax wii ko loolee moo gënoon ni ñu def ni fësal lu nu mel ndax loolu da nga naan déet. Euh, lu ni mel mooy am wala. waaw mais c'est euh, euh, njëgu dañoo lekk sama lañ loolu pour man moo jiitu woon ma mujj ndax teggin ak ak ak teggin ak kersa moo jiitu woon Sénégal ci li ñu xam mais du ñu déglu rek ku nekk wax lu la neex ñàkk teggin sur tous les plans suñu toll nii ñun dañ nekk dañ ciy jaaxle dañ ciy dañ ciy dañ ciy waaru lay wax ndax loolu mosuñu ko dégg ñuy wax à nu. ci en public ñëpp di ko dégg di ko nettaliwaat pour ñu naan vraiment Sénégal mi ngi bëgg a tasaaroo te foofu la nekk malheureusement. mais tamit tribunal chaque jour tamit ñu atté fi ay mbirum viol da ngay dégg kàddu yu ni mel def na ma lii nag def na lii def na laa loolu tamit du lu bees ci tribunal euh, xëy na bi yoon mbir yi na mu demee la waaye loolu du fa lu bees. waaw mais euh, loolu nga marqué rek mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax rek li ma la wax rek euh, fi nekk nii muy li am fi nekk nii malheureusement déglu wuñu dina war déglu. yooyu ngay wax CDK particulier suma ko dégg man suma ko dégg donc vraiment nag foofu lañ lu di ko naqaru bu baax a baax. Mhm. jërëjëf euh, Alassane Seck ñu koy sant di koy gërëm Alassane ci euh, jiite LSDH di Ligue sénégalaise des droits humains moom nag bokk tam ci société civile bi ñu koy gërëm bu baax a baax ci ànd bi mu ànd ak ñun euh, doon jàngat li nga xamante ne xew na dem ba mu lu rëq-rëq yi nga xamante ne am na ci wàllum procès bi lu jëm nag ci ñàkk avocat pour taxawu Ndeye Khady Ndiaye ci chambre criminelle nag noonu tam procureur bi nga xamante ne dane kii di Ousmane Sonko nañ ko daan lii le viol di euh, corruption de la jeunesse di lo xam te gis corruption de melni euh, kon procureur daf jeunesse, kon kon lambatu ci mbir kon euh, ci spéciale bi corruption ko dem bi di di député ci assemblée nationale député yewi de ci taxawu Sénégal bi nga Khalifa Sall Aba lay yenn waa taxawu ak yow lan nga gisee ni nga xamante ni euh, moo xew démb ca tribunal bi ñu àtte Ousmane Sonko procureur bi sàkku ñu daan ko fukki at euh, ngir wàllum euh, viol ak tamit juróomi at bu fekkee ne wàllum corruption de la jeunesse new ban njàngat ngeen def ci réquisitoire boobu procureur bi def. waaw jàkk information que ñun lu lu jiitu réquisitoire bi procès bi si boppam moo nekk gàcce ci ñun. ndax euh, ñun dañu engagé wu ci politique euh, di def politique euh, politique bu nga xamante ne balaa muy am sens rek mu mën a jëriñ doomu aadama yi ñuy pré yore dëkk bi di ko doxal di préparer avenir xale yi et je pense que bu ñu demee ba egg ci waroon nekk ci jongante politique jongante xalaat jongante xel jongante doxalin joxale toogin tey Sénégal jongante politique tribunal lañ koy yóbbu ñuy uñ ñi sutura yi sauf que devant la justice tous les citoyens sont égaux amul politicien amul kilifa ak nangam nangam. justice justice la justice. ko mais mais da euh, ngay da mais mais qui qui ngay jugé justice Nous ngi rendons au nom du peuple. tey Khalifa Sall bi nga tawoon ne escroc mais ànd avec ak coalition dem devant l'élection, est ce que faluñu ko Ousmane Sonko ëllëg situation politique mën na ñaan mu bokkaat élection dem devant le peuple ñu fal ko mais le tribunal d'un homme politique c'est le peuple Nous avons dem élection am li mu am toll fi mu toll tey il appartient à l'État et aux autorités publiques de préserver certains hommes politiques de les préserver euh, de préserver l'acteur politique non pas parce que da ngay fa favori mais parce que les nga de si un digital. am digital qui jeexital bi ci gouvernance état bi lay mujj ci politique administration état bi day tax tey citoyen bi du wekk homme politique bi exemple, dafa mel ni tey euh, politiciens ay xar yu saal lañ di xool vie privée di leen saaga di leen xas mais ëllëg kooku nga xas saago tey bu nekkee sa président looy def je pense que tey am war na jàngal kenn ku nek on est allé trop loin te li am gàcce rek la jural kenn ku nek ci ñun jural solo sax ñu dugg si détails lañ fa wax lañ fa waxul la vérité mooy dañ war egg egg fi ba ay doomu aadama di ci dé parce que bañ ko tambalé ci Khalifa Sall ñi wax ay waxu dugub ak waxu ceeb mooy lii mooy jeexital bi lo gis am na fu muy commencé mais day gëna yok di gëna ñaaw di gëna bon mais jeexital fa lay mujjé bu ëllëgee kenn du wolu kenn Sénégal kenn dootu wolu kenn doto wax ñëwetoo sax yone vocal WhatsApp kenn du wóolu kenn kenn du wekk kenn kenn respecté kenn saagante tamante morts 15 morts 20 morts te ñu comme si de rien n'était mais demain quel que ce sera je pense que la responsabilité de tout un chacun interpellé et en tout cas les hommes politiques doivent apprendre à se réconcilier avec la politique et faire en sorte que les Sénégalais se réconcilient avec la politique pour qu'ils respectent la politique si on respecte la politique, on respectera les hommes politiques. Mm, mais, mais, mais l'État Dembo, uh pas contre Ousmane Sonko, mm. c'est contre la politique au Sénégal et c'est contre l'État dans son ensemble. Mais tamit mbir mi ni mu démé coow li ci am yépp euh, diggante euh, Adji Ousmane Sonko jàppal bayil euh, nit ñi tamit soxla nañu xam mbir tamit naka la demee xam dëgg ci mbir mi donc c'est normal procès am pour ñu xam dëgg-dëgg lan mo xew wala lan mo xewul. xam nga li Demba dafa mel ni tey nga nga euh, maire de Dakar koy francs par mois mu war def appel laa gàmmu nga xam lépp luy doon si kaw nga jox ko mu exécuté nga ni millions condamné cinq millions si ko xam da nga def dafa milliard huit cent ñu ne ñu fay un milliard huit nga ni xam nga

Mm, kon yéen daal euh, li ñu li jàngatee moo di ne waa taxawu tey jii euh, yéen a ci gannaaw Ousmane Sonko ci mbir mi donte sax euh, jamono yële ñu weesu xajam xajam amoon na. waay xajal mu ñu yuuxoo Barthélémy Dias dagg santeeg Ousmane Sonko kon ba léegi tey yéen a ngi jàppale Ousmane Sonko di ànd ak moom ci mbir mi. dama ne ñun déggoo li ma la ñun ñu jëmm Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko ak militant li ñu dund démb ñun dañ ko dund ba pare exemple pour ñëpp.

il s'agit de la gouvernance du pays. Arrêtons de, de vouloir euh, euh résumer le Sénégal à un homme. Fii, il n'y a pas de messie. lu fi xewoon vous fi ku fi xewoon xewi nga am na ñu fi nekkoon jóge nañ fi mag ñi ñu ngi bàyyi Tanor jóge na fi Niass bàyyi na génération mooy il s'agit de nos relations politiques il s'agit de nos rapports à la politique il s'agit de nos rapports à l'État à la justice il s'agit de Sénégal et de l'avenir du Sénégal il s'agit pas d'Ousmane Sonko donc li xew démb c'est pour tout le monde et que mu nekk ne politique Serigne Assane Dom ay nit a koy def nit ak i noppam nit ak i nit ak i ak i bëgg-bëggam nit ak ak melokaanam duñu ay yàlla duñu ay yonent et ñu remonter la politique à cette dimension là c' est vrai que li xew démb ñaaw na waaye aussi nañu comprendre ne saaga bi xaste bi mënut a wéy mënut a continuer c' est pas comme ça qu'on va faire la politique en tout cas ñun de. jërëjëf Pape mbay engagé en politique. Ah, euh, ñi koy sant di koy gërëm bu baax moom Aba mbay nekk député ci assemblée nationale bokk tam ci taxawu Sénégal bi nga xam te ne euh, Khalifa Sall moo ko jiite. wéy ba léegi ci waxtaan wi édition spéciale jagleel ko atte bi woon dem procès bi amoon démb ca chambre criminelle tribunalu Ndakaaru euh, procès Adji Sarr Ousmane Sonko li ñuy ànd ak Abdou Mbow di député ca assemblée nationale nekk tam porte-parole adjoint bu APR Abdou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ngeen mhm. euh, na ngeen gisee li nga xam te ne xew na démb euh, ci àtte bi euh, procureur sàkku fukki at Ousmane Sonko ci wàllum viol juróomi at ci li ñuy wax corruption de jeunesse da nu ngeen gisee mbir moomu. waaw jërëjëf maa ngi lay <clears throat> nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñëpp ci RFM di wax rek ne maa ngi nuyu bu baax sama collègue bi nga xam ne moom moo wax léegi di ab Mbaye di. sama collègue maa ngi ko respecté naa ko bu baax waaye di ko wax rek ne moom li muy comparé mbiru Khalifa Sall ak mbiru Ousmane Sonko bokkul parce que mbiru Khalifa Sall loolu leneen la dépassé nañ ko mais bokkul ak lii parce que affaire Ousmane Sonko ab sénégalaise bu ñuy wax Adji Sarr buy liggéey ci salon de massage bu ñuy woowee Sud Beauté moo porté plainte Ousmane Sonko ne daf ko sàkku menacé ko de mort

yow mi boo fa demoon mi ngi nekk booru école boo xam ne dëkkoon naa ci boor yooyu ruqi la moom moo fa demal boppam guddi la fa dem kenn gungewu ko couvre feu moo amoon lépp loo xamante ni nit war na ko mën a def pour dem foofu amul kenn koo xam ne tënk na la yóbbu moom moo fa dem boppam loolu moom ñëpp wax nañ ko ne foofu erreur mooy dem fa rek mooy erreur moom dégg ma rek baal ba ma àggale rek baal ba ma àggale parce que loolu aussi mooy am muy benn mu njëkk a bind aussitôt bi mbir mi amee mu ne xamuma Adji Raby Sarr musuma faa dem waxaat te suba ga conférence de presse daan ne man sax de dem naa ca Sweet Beauté waaye dama doon faju dem naa dama doon faju dama doon massage waaye ñun ñëpp xam nañ ne comme ni ko benn tubaab waxee lu panaar boobu amul faj boo xamante nii war nañ ko faa mën a def te dañ ko fay def donc li am ba des mooy

pour viol parce que ñun ñi ay député la ñun ñoo voté woon criminaliser viol hmm. pour que bu ñu nee yow kat dañoo le euh, da nga coupable ci viol code pénal ak code de procédure pénale lii la wax ne nañ la ko daan hmm. bu dul loolu corruption de jeunesse mu indi ne juróomi at la donc ñun même bu ñu ay juriste ay législateur lañ xam nañ li nga xamante ne ni moom la yoon wax mais ñu bëri nag nee na loolu mooy problème bi bu bu doxul bëri dox xam nga genre la viol bi 10 ans bu fekkee doxul ñu xool corruption de jeunesse bi mel ni koy euh, hésité yi koy tatonné parce que yi non loolu ñun ñëpp di ay juriste waaye gis nañ ne procureur buy def réquisition dafay def réquisition parce que da ngay gis des fois ñu ne jiw toppee nañ ko nangam ñu ne ñëw nañ requalifié nañ li nga xamante nii mooy les faits loolu am na fi hmm. donc je pense que loolu aussi ñun ñëpp dañ koy dañ koy vivre maintenant li nga xam ne moom laa bëgg a dàq mooy ay affaire complot ak leneen parce que complot xam nga mooy lan ñun état bi ñu jël Ousmane Sonko tënk ko yóbbu ko Sweet Beauté tëral ne ndaw si ne ko na la maase defal nangam defal nangam mais loolu amul donc vraiment nañu bàyyi xelu nit ñi ñuy fooye te gis nga li ñu war a déplorer xam nga mooy lan ñu conscientiser la jeunesse maanaam wax ak ndaw ñi parce que ndaw ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan am nañ ay wayjur ci Sénégal la ñu dëkk amal nañ Sénégal mënoon lañu amal Sénégal euh, dara. Hmm. parce que ay jeunes lañ ñoo xamante ni amoon nañ ci ñoom yaakaar ndaw seen seen famille yi am ci ñoom yaakaar sénégalais yi am ci ñoom yaakaar réew mi am ci moom yaakaar mais kenn koo xamante nii dañ koo jiiñ dara muy def conférence de presse chaque jour naan ñëw xale yi may leen mortal combat ku dee sa nduy ndey juraat ñëw leen ñu résistance ñëw leen xeex ci sa teeyu bakkan kese. parce que yow yaa dem foo xamante ni dañ la faa ji viol c'est pas parce que tu es un homme politique que euh, lépp lañ la war a permettre gis nga ñun ñi di homme politique yi ne dañoo war a jiite ndaw ñi dañoo war a jiite réew mi dañuy sàkku baatu askan mais war na ñu am des comportement irréprochables c'est pas parce que dañu ay messi lañ wala ay nit lañ ñoo xamante ni ñu ay nit waaye gis nga dafa am benn kilifa gu mat mu ne ma woon boo bëggee jiite say morom xamal lu ñu xamul mën lu ñu xamul fexe mel noo xamante ni meluñu noonu parce que nag aussi njiit dafa war a nekk une référence parce que même ki nga xamante ne nii jàngalekat la dañ naan dafa war a doon koo xamante ne nii nit la koo xam ne dafa war a nekk un modèle ki nga xamante nii moo nekk kilifa ci kër dafa war a ki nga xamante ne nii c'est pas pour rien que ñu ne yow bu fekkee ne da nga war a nekk président député wala leen da nga war a am casier judiciaire bu vierge wala da nga am et pourtant ñun ñëpp ay sénégalais lañ donc loolu c'est parce que am na ay sart yoo xamante nii dañu ne ñii nga war a mel pour nekk njiit

kat mbirum politique moom euh, complot politique kenn mënu ko cee génne. Euh, ndaxte nguur gi tamit euh, ay péché politique même ci. xam nga ku ko ci dugal ñi nga xamante ni ñoom la arrangé waaye mbir mi comme ni ma ko waxee. parce que nguur gi tey arrangé na ko tam Ousmane bañ a bokk. oui waaw arrangé na ko arrangé mais dama ne surtout ñoom sonal nañu jéem a pexe jéem a bañ a bokkul. nguur gi la mais yow mais yow nguur gi moo ko yóbbu suite beauté

bu ñuy wax nañu wax loo xamante ni lu ay fee ak lu factuel la waaye nag bu la neexee yow nga dem def say njombe ba pare daal di ñëw daan ne Moussa Ndiaye moo ma def nangam loolu nag moom kenn munu ci dara waaye sénégalais yeeg sénégalais yi moom kenn mënu leen lax te li nga xamante ni am na ñëpp gis nañ ko maintenant les faits sont sacrés le commentaire est libre comme on le dit en journalisme Eh, Abdou Mbow honorable député Abdou Mbow eh, nekk ci assemblée nationale nekk tam porte parole adjoint bu APR ñu àndoon ak moom ci waxtaan wi dellu di koy sant gërëm bu baax baax ci wi ak eh, di madame le premier ministre Aminata Touré madame premier ministre ñu ngi lay nuyu. ñu ngi di fay. Thiaw mm, li dégg nga depuis démb ba léegi gannaaw atte bi biri sa ci la fa xew. ah suivre ma ko sax parce que dama cee teel décroché wu dama teel bay suivre bi parce que dama jàpp ne euh, lepp lu am rek ci réew mi euh, dañu ko wara a ci ci ci ci li tubaab naan défense manam bàyyi xel ne dëkk bi ay xale ngi fi ay kilifa ngi feek leen ak ñu ni mel euh, du euh ñu mëna a euh tubaab dafa am lu mu indi moy huis clos

Euh, te defe naa ne loolu it aussi bare naa ci moroom fii ci Sénégal. Hmm. Euh, mënoon nañu am séance huis clos maanaam bu ñu tëj euh, la ñu fay wax ñu wax ko fa ba voilà ñu def la nga xam ne moom la ñu war a. mais mbirum tribunal daf leen nag ñu fay atte mbirum viol te mbirum viol chaque fois xam ne ni muy demee yaa def defuma yegg na flan lii defuma lële loolu tamit du fa gulet te ñeneen ñi dañ leen koy defal ñëpp fekk taxaw di déglu. ay citoyens kon ñu citoyens yëpp a mais defe naa ne li ñu dégg démb euh, li ma ca jot a démb mosuñ ko dégg ci ab tribunal kam bu fekkee ne am nga ci beneen euh, euh, occasion nga wax ma ko dañu la ma ca jot a dégg ba arrêté dem naa ne kenn mosu koo dégg ci tribunal te dund naa ci dëkku tubaab yi sax nga xam ne ñoom ci wàll yooyu xëy na ñoom bariwuñ lu leen ci déranger même loolu du fay am dañuy am lu am huis clos parce que nag li ñu war a fàttaliku mooy nit ki tant que condamné wuñ la rek dañuy jàpp ne innocent am defoo dara nul n'est déclaré tout le monde est innocent jusqu'à ce qu'on soit déclaré coupable loolu la tubaab wax mooy maanaam fekk daanuñu la le dañuy jàpp ne yow la ñu lay euh, accuser dafa bokk principe boobu nag mooy tax nga respecter aussi euh, voilà dignité ou ku ci acteur yëpp ndax ku ci nekk am ku ci am voilà am ngay am ngay xarit ak i àndandoo. Mhm. léegi lu jëm ci réquisitoire madame le premier ministre réquisitoire procureur 10 ans pour mbirum viol bi ak 5 ans pour euh, corruption de la jeunesse euh, naka nga ko jàngate man duma commenter duma commenter procès kooku defe na ni ci suma ci suma principe la bok lima len leen wax moy ci jamono ji ñu tollu euh sénégalais yi japp né justice libre et indépendante barewut seen rajo boobu bu ngeen génnoon di di interroger ay ay ay sénégalais bu ngeen jaamee fukk euh, juróom-ñeent yeeg genn wàll dañ la naan justice bi dañ koy def loo muy def dañ koy bàyyi loo muy bàyyi euh, ndax man li ma jàpp lii yëpp dafa bokk ci benn benn benn ëmb muy ëmb bi nga xam ne moom la président mën naa ne sax togg euh, ndax le président di togg moom mooy yoonal yoonu troisième mandat mhm. voilà ay procès kii foqati mandat wu député ni mu ko defee ak man mhm. ay mhm. voilà journaliste yu ñuy arrêté def naa am ngeen ci seen benn mbokk sëñ Saliou Gueye. Mhm. def naa ne téye nañ ko responsable F24. Euh, Daouda Gueye doon ñëpp doon ñëpp ci 24 heures la ak ñeneen ak i ñeneen ak i ñeneen. Mhm. ak i xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi donc man pour man loolu yëpp bi la bokk. mais euh, voilà. mais sa taxawaay madame lu premier ministre wutee na ndaxte bi nga nekkee woon ci nguur ñi fàttaliku bi mbir mi xewee Ousmane Sonko aji Sarr li nga wax moo di ne euh, président Macky Sall yorul agenda bu site bootee ba mu fay dem tey jii boo taxawee ne li yëpp complot la est-ce que waroo amul ci say. kàddu non li ma li ma li ma li ma li ma wax euh, ak li ma waxoon loolu. Euh, ci beneen jamono la woon. Hmm. kooku xam naa ne. Hmm. Euh, kon jamono daa soppeeku. non non ko jamono daa soppeeku kon. ci diggante bi nekk naa hmm. fi. ba ma ba may ba may waxul. maa jiite woon liste Benno Bokk Yaakaar n'est-ce pas. Euh, fu ma mujjee ñu poqati sama mandat wu député ci assemblée nationale fa nga xam ne fa la ñuy voté les loi bu ñu koy wote ci assemblée nationale lañ koy wote. moomun naka nga ko gisee le fait que euh, sa jarbaat euh, ñu tudd ko ci ba mu nekk témoin ñenn ñi gis ne sax li yëpp complot la et que ñoom ñëpp euh, mokk nañ ci ñu def complot bi waa jërëjëf Ndiogou maa ngi lay sant di nuyu auditeurs yi di nuyu ñi jiitu ci ci ci antenne bi di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla Sénégal yàlla indi fii parce Sénégal jàmm a ngi fii mais yàlla yàlla indi fi dal Euh, donc euh, dal bi nga xamante ni euh, lépp dinañ ko mën a doxal parce que du politique rek a fi nekk te diine jaa ngi dox leneen a ngi dox mais politique bi xëj na moo ñëw rek saaf ànd bi ba mu tàng bëgg cee teg nit te loolu du dëgg du yoon ci foo mën ci bokkee. li nga wax noonu nag mooy dina dama wax ni tey mooy exclusivité xëy na may wax ci ci dossier bi te bi nga ma waxee sànq ma ni la dinaa ko def ndax. Euh, fi mbir mi tollu la parce que li xew kañ la euh, dañu toog euh, février 2021 man dama nekkoon bitim réew di def médiation ci crise centrafricaine ma génn dégg ñu ne Ousmane Sonko accusé nañ ko ni dafa sàkku jigéen bon man j'avoue que bi ma ko déggee dama joxuma ko lu am solo parce que dama wax ni rek que politique moom boo ciy dugg dina am lu lu génn lu nekk dëgg lu nekkul dëgg bon ma bàyyi noonu

boobu nag mu nekk ñu invité ma TFM Aïssatou Diop Fall ma dem munoon a wax ni duma ma ci wax parce que moment boobu maa waroon a gën a daw télé ak rajo yi ma ni comme waxoon naa ni damay dem ci émission bi bu ma demul dana mel ni dara tax ma dem ci émission bi wax fa la ma fa wax deux ans yi ba léegi nii maa ngi ciy soog a waxaat pour wax ni man ci schéma lay doxee bu ma teg ci xel ak ci teg lu may nangu booba la ma waxoon rek laay waxaat dama ni Sidi Ahmed suma doom la ma mag bàyyam bokk ndey ak bàyyi judd na fi mu war a judd ñu yóbbu ko mu jàng alxuraan kokki ñëw ñu wutal ko métier wutal ko mu xëy muy daani dooleem di dem am na ñi nga xamante ni seeni doom sax xamuñu ci lu ñu nekk waxatuma laaj seeni jarbaat man nag yàlla nattuma askan wi ma bokk tey ëppalewuma ci ëpp ma ci xam-xam gënuma ci waaye ci mbiri jamono maa ci ëpp tur looloo indi ba ñuy wax sama tur ñu ne jarbaatu kan la ñu ne man la mbir mi sama tur ni ci lij waaye ma de ma boole ñaar nag ma ma woo yoon ni yàgg ba pare dund ko dans la dignité mu nekk justement yéen njaboot yi euh, la fekk ñu ko ci tudd euh, di wax ne moo ci bokk bokk na ci complot beeg yooyu noonu yëpp euh, ba nekk ca sax sedde nu ngeen ko dundee yéen njaboot gi waaw moom laa la wax noonu dañ ko ci dund parce que ñun ñu bokk ci alaaji Paate Mbay mooy suñu wayjur

suñu do suñu jarbaat boobu nga xamante ni def ci dugg te yëguñu tinuñu xamuñu dañu nii danañu dund li ñuy dund ci naqar waaye dinañ ko dund ci dignité waaye dinañ ko dund nag ci xam ni moom moo dugg ci li nga xamante ni xamuñu ko woon waaye du tey tey la gën a nekk suñu doom tey la gën a nekk suñu jarbaat njoogu parce que buñ doon wax tey Sadio Mané mbokkam ya bokk ak moom fu sore sax dañ koy nangu mm-hmm. donc boo amee njaboot dugg ci dara di nga ko wax ni ko ñaar doo tukki doo génn doo daw fii ngay toog assumé ko nag ànd ak moom nag ci yeneen aspect yi mooy ba mu waree takk jabar dañ dem ñaanali ko jabar yàlla na ko yàlla may kii nañ ko taxaw mais ci mbir moomu dañ ko ni comme yaa ci dugg assumé ko sa bopp. baa bi mu ñaani jabar mbir mi demoo la ñu naan ah, kii de moom la ñuy tudd ci mbirum aji saar ak yoonal ba ñu mais ba tey ah. mais dañ wax ni rek gis nga xam nga xam nga loolu yëpp dafa bokk na lan c'est-à-dire àdduna yéyum kaa xeeñ laaj yéyum guro njaboot gu ne dina yëy kaan yenn saa yi mu yëgu ko ay da koy nangu waaye li bonoon tey mooy ba ñu waxee li ci intéressant mooy loolu ba mu jógee dafa am ay homme politique yi nga xamante ni sama tur bi nekkoon ci noonu xëy na doon nañ ko ci gën a yëngal mais ñaar am ña doon wax ca beneen côté ba di wax ñañ yaakaar ni dugg nañ ci man xaw ma du ma wax ay complot laaj yooyu ñooña ba léegi kenn tudduma ci ma noppi tey bi ñu demee ba def enquête

am kenn ki nga xamante ni ku ne gis na taxawaayam ci ci ci xeex mbir mi ak ci jël position muy dàmbooj dàmbooj mosuma ko teg bët dama toog ba ci ak ñu yóbbu benn benn vidéo ni ma ma dégg mu ne ñaar ñii de kii muy Macky Sall yëgul li xew parce que bu ko yëgoon état di di nas dana gën a réussir nii keneen ki mooy Maodo Malick mbay damaa gëm ni lii xamul yëgul tinul ndax bu fekkoon tey dafa bokk te ne koy nas xanaa war na am xelu bu koy nas lu bokk dana ni bu dee nas am na parce que dama wax bu dee nas am na dana ni comme dañ koy nas xanaa duma ko nas ba pare nii sama doom wala sama ku ma jege dem dem ci te daam buuj ma koo teg bët. jërëjëf Maodo mbir mhm. mbir mi mbir mi fi may fi may fi may terminer rapidement rek mhm. mooy dine dañu dañuy sant yàlla mais ñu ñu xam ni que Sénégal day war a dund après tey loolu nag li muy war a indi mooy ku ci nekk ña nga àndal ak foo mënti nekk nga dox jàmm nga wax jàmm te lii ñu woote moo tax ma am ci yaakaar muy dialogue bii ñu woote pour nit ñu toog waxtaan dama jàpp ni lii nga xamante ni yii yëpp lu ñuy war a mën a toog la ci waxtaan ci jaloog seet nan la ñuy dalale réew mi parce que président Macky Sall su may terminer bi muy woote dialogue fekkul mu jaaxle fekkul mu jommi ci mbaaxam ci dayoom la ko tegee mhm. donc dama yaakaar ni Sénégal dafa war a mhm. gën a mhm. génn ci lii ni jàmm am ci réew mi jërëjëf euh, Maodo Malick ñi koy sant di koy gërëm bu baax a baax mu doon indi ay leeral moom ni nga xamante ni euh, papa bu ndaw la kon ci Sidi Ahmed mbay di seede ci mbir mi démb sax ñu déglu ko foofu foofule euh, ci àtte bi dañuy delluwaat ak madame le premier ministre sànq dafa daggoon problème réseau madame le premier ministre sànq yaa ngi doon indi leeral ci sa taxawaay démb ni mu wuteeg sa taxawaay tey ci wàllum politique ci mbir mi agenda Macky Sall yoru ko tey yi taxaw di defaan Ousmane Sonko ne complot politique la waroo boobu moom euh, nes ko mën a oh, ah, expliquer ah, ah, xaaral ma wax la lu tuuti rek man su ma lu ma mës a def rek dama ko mën a assumer li ma def ba ma àndeek makki Macky Sall yëpp dama ko assumer parce que position partisane laa yoroon kooku dama koy assumer donc jarul ngeen ci yàgg parce que lii laa lay waxaat man fu ma ne dama ciy ne ba jeex nekkoon partisan jiite liste tey ma nekk opposition te li ma indi war a la ñu war a la ñu war a wax ñu wax ko décision yi ñu war a jël ñu jël ko parce que dama jappene aussi euh, tant que nit ki déclaré coupable innocent la. Mhm. innocent aussi dafay am dañuy préserver dignité ah, madame la premier ministre madame la premier ministre lay sant lay gërëm bu mu madame Aminata Touré ancienne premier ministre euh, euh, réaction yi jëm ci Walum acte bi won démb diggante que ak euh, Ousmane Sonko procureur bi sàkku euh, fukki atu kaso ndax mirum viol gi ñu topp Ousmane Sonko ak juróomi kasso ngir corruption de la jeunesse bu fekkee réqualification des faits dans di sàkku lolé Benfanti fan ci wéru juin kon ci le tribunal di joxé dogalam ci mbir moomu ñuy xaar kon lan la tribunal di dogal ci mbirum Ousmane Sonko Adji gana gannaaw atte bi won wéy ci xibaar yi wax euh, ci leneen mu jëm euh, ci wàllum euh, taskatu xibaar yi nga xamante ni Serigne Saliou Guèye di jiite yéenekaay bi di yor yor nekk garde à vue ba sax ñu war koo defeere tey li ko waral nag mooy dañ koy toppe ne defa nag du taskatu xibaar te da koy mbubboo ak tamit xotti woor ma magistrat lu jëm nag ci wàllum tasum xibaar gi ñe du taskatu xibaar du journaliste ndax amul carte bi loolu nag indi coow ci wàllum carte de presse bi ndax njëriñam ci séntu woon euh, am déet ak nan lañ mën a fexee ba lijjanti mbiru mu ni mel euh, si la carte nationale de presse ñu koy jëfandikoo ngir daldi di indi la ay jafé jafé yéni journaliste am ñu taxaw temm ne li ni mel am nañu koy jëfee jamono ji Ibrahima Lissa Faye di président association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne bokku ci ñooñee am gëm-gëm gi né loolu mo ab ci kaaw Serigne Saliou Gueye ak kii di Mati Sarnion man damay ñaawlu d'abord euh, japp gi leen japp pour exercice illégal de la profession ou usurpation de fonction parce que en fait ñooñu ay journalistes lañ yo xamanténé xam nañ leen bu yàgg am nañ plus de vingt ans d'expérience du métier ku ci demee ni Serigne Saliou nga xamante ne formé na fi sax ay journalistes yoo xam ne tey jii ils font la fierté de de grands journaux vraiment loolu yenewul maanaam mais franchement dañuy wax rek dëgg rek te dee pouvoir bi dafa bëgg maanaam xoqatal ay journalistes dafa am ci viseur am en tout cas ay journalistes yoo xam ne war na leen jàpp et pour mën leen jàpp carte nationale de presse lay utiliser juste comme prétexte pour jàpp leen et nag wax dëgg fa yàlla ñu ngi yàq liggéey bi ñu liggéeyoon yépp pour ñoŋal presse bi et surtout pour professionnaliser presse bi. Mbaye Sarr Diakhaté di moom journaliste ci quotidien Le Soleil di ñaawlu situation bi bile jàpp ni li tax ñu war a exiger carte de presse dañ ci war a toog waxtaanaat ci encore. bi ma gisee bu sëñ Saloum laa tiitee man ah, man kat ci cas bi laa nekk aw ma carte donc bu ma am nañu tuuti expérience xaw nañ ci am ci ay ñaar fukki at ak lu topp am diplôme wala même bu ñu amul diplôme am nañu expérience yàgg nañ ci te amaguñu carte bi xëy na dafa mel ne dañoo sóorul ci nan lañ ñu ko yombalee par loolu donc war na ne carte bi li taxoon mu jóg pour ñu ne dañuy identifier journaliste ñu assainir milieu bi dafa mel ne carte dafa mujj nar a jur beneen problème defaat lii di taxaw seetlu li ñu war a def nag mooy ñu xolaat na lañ koy bindaate xool waaw ministère bi nga xam ne du jëm ci loi moom moo koy yore initiative loi député la wala wala gouvernement bi te bii cas bi gouvernement moo ko def ñu dem xool nan la ñu mën a bindaate loi bi waa CAP waa CORED waa SYNPICS ak association bi yi toppatoo affaire finance yëpp ñoo tax ak ñoom ñu yor ak ak yële processus la exigible na depuis décembre décembre ak léegi matagul sax six mois journaliste yëpp mënuñu xëy rek amoon ko benn fan toll ni mille cinq cent cartes lañ jot a distribuer mu des ak lu bëree bëri waat encore donc bu ñu toogoon deux ans wala un an et demi nit ñi jotuñu seen carte boobaa muñ lañ topp nit ñi pour maanaam euh, usurpation de fonction wala exercice illégal de la profession carte nationale de presse naam dañu koy exiger té lu war la wara a doon li ko tax a dañ ko wara waye tamit formation journaliste yi te loolu nag ñu koy xaar ci assise nationale yi nga xamantene ne moom ñu bëgg li di tas Nafissatou Sylla daaneel ak wàllum diine ajik makaren gi mbind mi ngir mën a dem mag tey ji nag lañu koy tecc euh, foofa ca hangar des pèlerins nit ñeen fa fekk nag bëriwul noonu ñu bëri nag bind nañu ba noppi euh, di xaar nag euh, seen vol ñëw ngir ñëw mën a dem reportage Seydou Nourou Ba mujj ngir ñu bëgg a dem Makkatal Mukarrama ñëw bindu def seen enregistrement Ousmane Doy délégué général adjoint ca bërëb yu selle Makkatal Mukarrama di def bilan bi feesal nit yaa ngi waaj a feesal visite médicale yi def nañ ko ni ñu ko war a defee am na ci nag ay considération yoo xam ni dafay am solo nit ñi xam ko parce seen liggéey rafet na te bu ma gisee li ñuy li ci ko inapte daaw ma ko gisee noonu loolu dafay wane rek ne ñoom seen liggéey def nañ ko seen protocole bi lu bees ren nag ñu bëgg dem dañoo bari lool ñoo ëpp sax ak lim bi nga xam ne moom la ñu bëgg a amal wala sax délégation bi wuti ay roppalaan ngir yokk yëf yi euh, xam naa ne euh, yokk ci quota suñ ko kay ñëpp ñu nga xam ni dañu bëgg a dem daañu leen yóbbu te it nag boo amee quota yi da nga war a wut avion euh, avion yu leen yóbbu dox nañ ko ba pare ba ñu ngi xaar mun na am ñi nga xamee ne ñu ngi toog seen kër di xaar pour bindu yore seen koppar bëgg dem ñu ngi naan yàlla subhanahu rek li ñuy bëgg ci yokk mm, bu baax a baax a baax ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom ñett fukk juróom benn ay doomu sénégalais lii mooy lim bi ñu xaar Makkatal Mukarrama kon mën nañ ko weesu buñ sëkkandikoo ci délégation bi fekk fan ak ñeent ci weeru juin mooy départ bu njëkk roplaan buy jëlee way ujjaaji ci ndakaaru ngir makatal mukarrama waaye nag mu nar a am yenn ci ay coppite ndax wali dinañu wiiri li ko waral mooy fexe ba bañ a jaar ci jaww ji nga xam ne mooy jawwu Soudan di dëkk boo xam ne mu ngi ci guerre bu xaw a doy waar yegsi ci xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay xaaj Diop di football lañ koy doore ak coupe du monde euh, ñi amagul ñaar fukki Sénégal di joué tey ñaareelu matcham. contre bu 18h jotee incha allah ginnaaw bi mu ñàkkee seen match bu njëkk euh, équipe bi nag bëgg a def lépp ngir euh, daal di am beneen taxawaay ci compétition bi Soxna Thiam seq na waxtaan ak sélectionneur bi di Malick Daf. ñu di champion en titre ci catégorie bi Sénégal nag dafa daal di raté dugg seem ci gile coupe Israël la loolu nag moom moo tax mu nar a doon na jongante gu métti ci diggante ñaari équipe yëpp bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat gaynde yu ndaw di Malick Dafa. ça va mu wane match contre Colombie wane na xar bu baax xale yi mun football lañu et ñoom techniquement da xam ne seen joueurs yi sont bien outillés dañuy teg bal bi à de leur base arrière Sénégal aussi je pense que loolu la wane c'est li am solo rek mooy quand le match ouvert les équipes ba na dina wane geneen tey def nank et puis vraiment assuré ci loolee nag moom Malick dafa di ñaaxaat gayndey ndaw ngir ñu dëggal seen bopp waaye itam dalal xelu peuple sénégalais yi comme ko doon defee ci kaan bi xale yi sont conscients waxtaan nañu seen biir waxtaan nañu ak ñoom et puis je que tamit

Israël nag niki tey ji ci ngoon lay doon bu 18h GMT jotee. Soxna Thiam ngeen mun ko déglu ci RFM seetaan ko ci TFM ci TNT bi Japon Colombie 21h ci groupe D bi Nigéria Italie 18h Brésil euh, République dominicaine 21h. jógu wax lu soxal léegi walum basket euh, ak bal bi basket Africa League ak demi-finale yi tay ji. bu 15h jotee AS Douane mi teewal Sénégal moy dalal kan équipe Petro Luanda bu Angola ñoom champion en titre bu euh, conférence nil Angola yi kon ñom nekkoon finaliste daw euh, ñooy favori euh, ci kanam AS Douane mi nga xamante ni bii mooy guléet kon mu àgg ci demi-finale yi waaye mën nañoo kon euh, qualifier ci finale bi ci gis-gisu sunu naataango di Morba Bassine di envoyé spécial record ci Kigali. je pense AS Douane am na ay chance yu bëri ci match bi suñu xoolee parcours bi AS Douane def si troisième édition biyeeyal bi déjà mu commencé ñaari match yi mu lajji à Dakar gagné yeneen matcham ñëw éliminé quart de finale Ferrovio Beira bu Mozambique nga xamante euh, pratiquement suñu mënee xool équipe nationale Mozambique bi fa la nekk mu am ay joueurs expatriés yu bëri nekk foofu AS Douanes wane ci euh, taxawaay bu am solo euh, sur ñaari surface su terrain yi en attaque comme en défense gagné ay rebonds door ko 93 à 73 20 points d'écart ñu gis équipe boo xamante ni day en en puissance am benn état d'esprit bu positif bu nekk ci biir biir groupe bi ba pare li gën a def seen identité de jeu mooy défense te dafay am solo tey si match bi ñuy jouer contre Petro Luanda bi nga xamante ne dañoo am jeu extérieur ak intérieur bu am doole ay joueurs yu am expérience comme Solo Diabaté Carlos Morais wala ki nga xamante ni moo nekk à la baguette muy euh, Tchelde Doundaw mën nañu xaar équipe bu AS Douane am na ay chance mën na ci génn même bu nekkee Petro de Luanda mooy favori vu que Petro Luanda joué na demi-finale jël troisième place ci première édition bi jël deuxième ci deuxième édition bi donc ñoom ñooy favori ba pare ñoom pratiquement seen équipe bi mooy équipe nationale lu Angola parce que boo jëlee douze bi soo moytuwul sept joueurs wala huit joueurs yi nekk Petro Luanda ñoo ngi ci biir équipe bu équipe nationale Angola donc nous nañoo mën nañoo wax ne ñoom ñooy favori chance bu nous défendre bu ñu jouer en équipe wane euh, xar kanam bi ñu wane woon contre US Monastir foofu ci Dakar Mor Bassignan nekk ca Kigali douane Petro Luanda 15h ñaar ñaareelu demi-finale bi 18h30 lay doon diggante égyptien yu Al Ahli ak stade malien nekkoon champion bu conférence Sahara bi mooy sax guléet ñoom malien yi di bokk ci basketball Africa League. jaajëf Youssouf mbokk yi kon foofu la ñu yem mu nekkoon xibaar yi. Euh, kii di édition spéciale euh, ñu jagleeloon ko euh, atte bi woon démb diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr Ousmane Sonko ñu fàttali ne teewul woon procureur sàkku nag fukki at ci mbirum viol juróomi at ci wàllum corruption de la jeunesse benn fan ci weeru juin la ñuy joxe verdict bi mu nekkoon kon xibaar yi ñuy gërëm